am code électoral bu Sénégal dafa sàkku ngir ñu amal ay coppite ci liste électorale yi at bu ne ak tamit bu ñuy waajal élection ngir mën cee dugal ña nga xam ne ni seen at mot na ngir ñu dem wote seetlu gi mooy que ñu bëre ba tey seen tour newul ci fichier électoral bi. dañu constaté ci euh, période contrôle de parrainage des candidats yi. dañu gis ni euh, électeurs yu bëri dañu wax ni fichier bi reconnaître leen donc mu nar a jur benn benn problème boo xam ni citoyen nar nañ ko am le jour du scrutin. te nag bu ñu sukkandikoo ci ay banqaas ku ne. war ngaa am sañ-sañ dem ca mbañ gàcce ngir voté ci dañu demoon tey au nom de l' association pour la protection des droits humains euh, bi ñuy jiite dem def benn demande ci euh, les sept sages du conseil constitutionnel pour mu permettre ñi nga xam ne seen tour nekkul ci fichier électoral yi 25 février 2024 mu may leen ñu ñu ñu voté bu fekkee am nañu seen pièce d'identité ak seen seen numéro bureau de vote. ci bile sàkkute association pour la promotion des droits humains bëgg dox ngir ñëpp mën a dem wote ji ci élection. présidentielle bu atum 2024. posé nañu acte boo xam ne ça pourrait permettre en tout cas mu accéder ci te bu si accéder également non seulement dina ko protéger moom en tant que juge électoral juge du contentieux électoral dina protéger administration électorale DG ak Sénat mais dina protéger également fichier électoral yi ak candidat yi parce que bu boobaa day permettre population bi kenn du mën a am frustration pour ne le jour du scrutin euh, defuma sama sama vote. ñi nga xam ne ni jot nañoo bind ci fichier électoral amal nañ ci ay coppite seen i carte électeurs yi nga xam ne ni moo ci tukkee door nañ ko joxe li ko jalee fukki fan ci weeru janvier te dinañ ko wëyal ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février atum 2024 ni ko code électoral bu Sénégal sàkko